dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéene kaay ñu xëyantoo njiitu réew mi di président Macky Sall moo fi xëyoon wax ne moytu leen yee gaynde guy nelaw waaye nag dafa mel ni moom moo xëy yee gaynde guy nelaw yéene kaay gii di réew mi ko dëjee mu ñu xamal naan ñu Boubacar Sadio mi nga xam ne ab commissaire la woon ay jamono fan yi ñu génn dafa bindoon ab lettre bu tàng jër jagleel ko njiitu réew mi di président Macky Sall ñu daal di koy woolo Boubacar Sadio moomee moo xëy fàngaam ci yéene kaay gii di réew mi ko dëjee di leen xëy di leen nettalil ni nga xam ne moom lañ ko joxee convocation bi ak niñ ko jëlee këram ak ni ñu ko dégloo ni ñu ko yóbbuwaatee ak ni nga xam ne moom lañ dakkalee mbir mais lépp wax na ko ci journal bi yéen kaay gi nee na moom Boubacar la mu xamal enquêteurs lépp loo xam ne maanaam wax naa ko ci lettre bi dama koy assumer te am naa sañ-sañ wax ko ndax ci réew mi la dëkk war a wax sama xalaat ci réew mi te amul lenn loo xamante ni dinaa ko tiit wala lenn loo xam ne dina ko rafa man nag jamono ji pare naa ngir dem kaso Boubacar Sadio la mu xamal waa réew mi ko dëjee nee na bi nga xam ne woowaat nañ ko 16h30 dafa daal di defar ay bagaasam bu ak doyen du juge ba pare maanaam rëbës la jëm yéen a kaay gi di réew mi quotidien journaliste yi laaj ko na ko Boubacar ndax bu Macky Sall waxee dafa bëgg ñetteelu mandat bu boobaa lan mooy nekk sa taxawaay bu boobaa nee na Sénégal yi danañu xam lan mooy nekk taxawaayam waaye nag Macky Sall boobaa dinañu ko daal di toroxal ba ne tott ci réew mi Boubacar Sadio ci biir yéen a kaay di réew mi quotidien wax na ci lu soxal wàllum Covid 19 ak saax-saaxee gi nga xam ne littoral bi ñoo ngi koy saax-saaxee journal bi di Libération mu xëy dafa am benn jege ñaalu Macky Sall boo xamante ni dafa am coronavirus moo tax njiitu mi maanaam dañu ko ber dañoo quarantaine Macky Sall ndax dañoo njort ne dafa amee corona daal nañu koy testé waaye dafa daal di ñu ne ko toogal ay fan yu bëri yoo xam ne danañu la daal di càmbaraat yéen kaay gi mu ñu xamal ñu wisit bi nga xam ne Emmanuel Macron bëggoon na ko amal ci talaata ji si Sénégal dañu ko mujj daal di dàqande l'observateur ne dëgg gi kay jamono ji mooy palais bi si maanaam ñoo am njàqare ak tiit am na benn député boo xam ne Yaya Diallo la tudd dafa am corona coronavirus lu ëpp ñeen fukki député yoo xam ne maanaam def na contact ak ñoom def na contact ak ministre Malick Sall def na contact ak ministre Karim Fofana def na contact ak ministre Néna Tall def na contact ak na Bousso def na contact ak Soda Marème Ndiaye journal bi mu ñu xamal ñu Bamba Ndiaye mi nga xam ne ancien ministre la moom tim dafa coronavirus yéen a kaay gi mu ñu xamal ñu benn jege ñaale Aliou Ngouye Ndiaye boo xam ne dafa coronavirus woon ba wér moom moo mujjee ñàkk bakkanam source a moo xëy di ko xamal Vox Populi la mu Aly Ngouille Ndiaye boobu di major Moussa Diop coronavirus moo ko rey yéen a kaay gi de la turbine mu ñu xamal ñu en tout cas li am ba des mooy coronavirus jamono ci liñ ci mën wax ma ngi lëmbaaji réew mi lu toll ci junni ak juróom-ñeenti téeméer juróom-benn fukk ak ñett ñoo xamante ni ñoo ngi leen di faj jamono ji dem nañ ba amutuñ lal yuñ leen tëral yéen a kaay gi di réew mi ko di jéem mu xëy di ñu xamal ñu vivre avec le virus étudier avec le virus dem na këng waxi mag dem na nañ taali force jàng am tey ji nag la njàng mi di commencé waat ci élèves yi nga xam ne maanaam ñooy def examen Assane Samb ne loolee sax moo gën ci élèves yi ndax bu ñu demee ci école yi danañu leen mën a contrôler waaye bu ñu leen bàyyee ñu nekk di lambar lambar yi géej la ñuy dem wala ñu nekk ci terrain yi di fu football te bu boobaa musiba lay doon yéen a kaay gi du source mu xëy di ñu xamal naa ñu lu jëm ci wàllu matukaay yi nga xam ne état bu Sénégal waxoon na ne dina ko jël ci lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi am na ci lu bëree bëri loo xamante ni du dëgg am na ci lu bëri loo xamante ni maanaam waxi ndax saxandang la ndax boo demoon ca diwaanu Louga am na lu toll ci quarante cinq écoles yoo xamante ni amuñu ndox na lu lu toll ci 77 école yoo xam ne amuñu ay toilette ñi nga xam ne ñooy élèves yi maanaam buñ bëggee dem toilette dañuy dem ci kër yi wala sax ñu dem ci àll bi yéen gi nee na am na ay jàngalekat yoo xam ne école yi ñuy jàngalee amul ay toilette ba nga xam ne da ngay gisu jàngalekat jàngale ba si digg ba dagg ko fa wàcc maanaam abbu njool mi dugg mbooy gi wala mu dugg ci kër yi journal bi nee na bëri na ay école yoo xam ne amul thermoflash boo demoon Kédougou tey bëri na fa école yoo xamante ni amul ndox nga dem Foundiougne loolee moo am nga dem département bu Thiès bëri na fa école yoo xamante ni amuñu timin ndox loxo waaye nag fi nga xam ne mooy CEM Faylar foofe tamit CEM la boo xam ne maanaam toilette kenn mënu ko faa gis bi ñoo na am na jàngalekat boo xamante ne amee na fa coronavirus journal bi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Lansana Gagny Sakho mi nga xam ne moo jiite ONAS moom nag daan nay wax pexe yi nga xam ne Sénégal lal na ko ngir nag moytu li nga xamante ni maanaam mooy mbënd mi nee na Sénégal maanaam royukaay la ci lu jëm ci mbirum assainissement lu toll ci trois cent milliards la ñu dugal la yéen a kaay gi de esat mu ñu xamal ñu niki démb Liverpool Sadio Mané 4-0 la door Crystal Palace tey ji nag su dee nag Chelsea dafa nul ak Manchester City Liverpool bu Sadio Mané dina jël li nga xam ne mooy championnat bi ginnaaw at yoo xam ne maanaam ma ngi daw topp ci ginnaaw munu ko laal